suñu xel dina dal waaye dañ ne dinañ def téeméeri milliards ak ñeent fukk. ak ñaar fukk. ak cent vingt milliards. Mhm. Euh, amoon nañ fi cent milliards daaw yaakaar naa euh, dal na ci bu fekkee ne génn na. Mhm. waaye li ma jaaxal dafa xat dafa gàtt. délai bi dafa gàtt. waaw su fekkee euh, fonds yooyu. nekkul ci ci ci bërëb ba mu war a ni sur mhm. euh, dana doy waar. mobiliser ko dina xaw a gàtt waaw dina parce que dafa gàtt. Mhm. ndax soo seetee nawet jub na. waaw ñu ngi ci mois de mai. juin te yaakaar naa ren luy teel a taw la boo gisee ni mel. Mhm. kon ragal naa mu xaw a gàtt. xaw ma nag. bu fekkee nekkul sur place. léegi bu nekkee sur place daal dal na. xaalis boobu noonu ci lan la war a jëm exactement ba nga jàpp ne xëy na bu teewu lii fi dafay dafay gàtt. xam nga dañ ne jiwu ci la. semence ci la. intrant yi ci la lépp ci la mais su fekkee ne jiw jote joxe ko jot na. Mhm. presque parce que toujours dama daan wax gouvernement bi nay teel a joxe jiw. parce que bu teelul a joxe jiw day metti ci béykat bi nga xam ne amul lu mu jëndee jiw. Mhm. su ko lebee jee ca banque ba day metti te bu ñu ko subventionné état bi subventionné lu ko mooy gën a neex ka nga dem jëndi ko ñaar téeméer ak ñeent fukk ci marché bi mille cent francs mhm. te hectare bu nekk cent kilos lay def. te buñ la subventionné au lieu que ngay jëndee ko cent vingt mille francs hectare engrais door a ñëw intrant door a ñëw day metti kon su fekkee ne loolu ci loolu la war a dem dañu war a nekk wax mu mettre nekk en place d'abord avant ñu ko wax. Ah,